bari loo xam ne dañ koo def ci yoon wi sëñ Touba te muy réew mu mag moo xam ne moo mën nañu wax ne moo doole ci àdduna yi ci kaw waaye ñun li ñu leen nawet du du loolu Cheikh Ahmadou Bamba dafa am ñoom dañuy nit ñoo xam ne du ñu xool nit ak colom wala meloom wala alalam dañuy jàngat nit ci biir ba gis lu tax ñu mën ko téye <laughs> loolu moo tax sëñ Touba niñ ci def tubaab yi ñu gënoon a jaxasoo sax defuñu ko ci ñoom mat na fanweeri at ak ñett indil ma këyit boobu proclamation bi sëñ Mourtada def photo bi ak sëñ Mourtada moom lañu ko njëkk def fanweeri at ak ñeent la ci ren ñu wane ne bis bi 28 juillet jagleel nañ ko suñ Tuubaa muy officiel muy lu lu kii waaw li ko ëppale lañ koy def am na 28 juillet at bu jot boobaag léegi fanweeri at la ak 88 la woon yii mooy proclamation yi nga xam ne at bu jot gouvernement bi dañu koy taxaw def discours war na bis bi dañu ko jagleel waaw waaw at bu jot waaw at bu jot def nañ ko fanweeri at ak ñeent ci di yoon ci at bi weesu euh, def nañ ko Washington def ko loo Angeles te Los Angeles Californie rek moo ëpp France kon état bi bu ñu jëlee bés bu mel noonu jagleel ko Cheikh moom Bamba kon def nañ loo xam ne lay tax ñu def ko du loo xam ne dañ ko làmbatu waaw moo tax nag euh, mu ñëw di ku bees am na bu yàggul la ñëw mu ne day ñëw teraanga ji sax nag waxoon naa ñu saafara leen ko seen bopp ndax xam naa sa waajee ba fa woon xar yi misi ko <laughs> jeexul am na luñ ci bëgg a yóbbaale sax waaw noonu la loolu moo tax mu ñëw ci tey boobaak léegi génnagul woon mu ñëw tey may itam loolu moom laa ànd ak ñoom waaw mosuñu faa dem di laaj wala ñuy wax ak ñoom lu jëm ci lu doyadil mm-hmm. dara waaw ñoom it nag noonu la ñuy gisee nit ah, waaw ñu duñu duñu koo xam ne daal da nga ñëw sol sa col rek ah. ne ne sa waajee rek ah, dañ lay dañ lay jàngat bu baax waaw bon c'est le relais bu pouvez directement avec waaw moom itam moo tax ñu ñëw ci wax naa ko it ne ko tey bi doo recevoir waaye da nga ko ko jagleel te xam nga ne du seenu jot ak bari mënees na ku leen ko muñal ndax du du moom itam noonu nii la mel nit ku modeste ku ku woyof la malgré li mu yanu bari na li mu représenté it du lu tuuti mais dafay dégg bu fekkee ne da am loo yanu nag ci diine mm-hmm. beneen niveau ngay doon boo xam ne doo du nañ lay gisee ci modestie du bokkut ak la nga xam mooy li li am loolu moo tax ñu ñu indil ko ko voilà vous bi waaw loolu moo taxoon sëñ bi ñu ñëw sëñ moom moom na ma lépp ko am na am bu baax a xam nañ li mu bu baax xam nañ li ko tax a jóg xam nañ ko bu baax a baax loolu nag amul beneen yitte bu dul boobu mu sëriñ sëriñ Tuubaa am na xam sëriñ Tuubaa moo ko tax a jóg loolu nag kon donc ci amee cant gu rëy it loolu dafay daal di nekk wala suñu diggante. ñoo ngi ciy sant bu baax sëñ Mamadou bi ci ci ci ci ci taxawaayam ci lépp. rawatina nag it di nga xam ne def na ko suñu diggante moom. taxawaay boobaam ba waajur bu waajur taxawaay su waajur bu baax la foo baax wa moom suñ mu baax taxawaay boobu rek la taxaw dëgg xam nañ moom xam nañ xam nañ états eh, am na il faut que ci mboole monde bi il faut que kenn ne am na loo jàpp ci état bi wax waaye nag euh, noonu ñi am gën a am yaakaar bu baax bisimilah suñu diggante ñëw nag suñu mamar mi nga xam ne moom euh, euh, xam na xam na taxawaayam te won nañu ko gis nañu ko ko ko sant ci tànk yi ndox ba ñëw fii euh, ne ko incha allah fii euh, moom li mu bëgg ci li mu bëgg rek ci lu baax ci monde bi ci taxawaayu monde bi yëpp lu baax ne ko lépp moom fii sëñ tu sëñ tu wàllu rek fi andi woon euh, do dimbali nit ñi rek ci biir ak ci biti loolu rek moo ko fi indi woon kon nag kon nag na fi xelam dal bu baax a baax. so you can rest assured that they are leading us. ñu ngi koy jëlee ñu ngi koy jë ñu ngi koy sant bu baax. thank you. ce groupe. Vraiment, je suis touché par vos, vos mots très, très très, généreux. Euh, quand j'ai reçu votre invitation de vous rendre visite, j'étais extrêmement honoré et je vous remercie au fond du cœur. Do you want to translate? mu ngi lay jaajëfal mu ngi lay jaajëfal si si euh, invitation bi nga am bu ma xamee ne dafa naroon ñëw fii. moom mbégte bu bari la am ci ci xolam ñu ngi L'ambassade des États-Unis a entretenu depuis longtemps de de très bonnes relations avec euh, la confrérie mouride euh, et avec la diaspora euh, que nous avons l'honneur d'arbitrer euh, aux États-Unis et merci beaucoup pour le rôle clé que vous plaît Serène pour garder le contact entre nos deux pays comme ça. Euh, et je suis vraiment honoré d'avoir l'opportunité d'approfondir euh, nos relations euh, dans les jours et, et, et semaines et j'espère les avenirs à venir. États-Unis moom dafa kontaan si doxalin bu yàgg am ak sëriñ Mamour te moom ci boppam moom mbégte la am ngir ñëw fii ak continuer tamit relation bu mu am ak sëriñ Mamour. Euh, euh le, Sénégal est pour les États-Unis un partenaire stratégique clé. Euh, et la base de ce partenariat, c'est le partage de valeurs communes. Et ces valeurs sont vraiment les valeurs de, la confrérie mouride. Euh, et je me sens chez moi Sénégal parce que je, je, je, je comprends euh, la sincérité du peuple sénégalais et de vous-même Euh, Khalifa euh, à cet égard, les, les, les valeurs de, de, tolérance, de coexistence pacifique, euh, de, de, travail acharné, de, de participation efficace et, et, responsable dans la vie sociale d'un pays. C'est pour nous quelque chose d'énormément important et vraiment la, fondation de, de, notre partenariat bilatéral les valeurs de vous-même et de Sénégal ak États-Unis ñoom dañu bokk doxalin yàgg nañ bokk doxalin moom euh, dafa kontaan chaque fois su ñëwee fii Sénégal day mel ni fii la dëkk ndaxte lu ñu boole dafa bari lu wàllum euh, ay valeur lu wàllu tamit démocratie patrimoine liggéey bi loolu yëpp moom mbégte la ci moom donc loolu daf koy. def si daal ñu continuer. ñu dox ñoom mel na ak yoon wi. ci wàllu adduna. Un peu plus tôt aujourd'hui j'ai eu l'honneur d'être parmi les étudiants de l'université Amadou euh, et vraiment fortement impressionné par euh, euh, comme toujours avec la la jeunesse sénégalaise leur leur, leur potentiel leur volonté leur esprit Euh, et leur capacité de bâtir euh, un, un, un, un bon avenir pour eux-mêmes et pour leur pays. Et le rôle que, vous payez, euh, le rôle que vous, vous jouez à cet égard pour donner les opportunités éducationnelles, pour les encourager, c'est ça qui va assurer le succès de, de, de ces étudiants, mais aussi du, du Sénégal. jàng ndaw yi loolu gis na bu ci kanamee jotoon dem université bi gis na ay xale yu xarañ gis na tamit euh, li ngeen li ngeen di dugal ci jàng bi te gëm na ne ci jàng bi daal xale yi daal mën nañ ci am naataango donc loolu daf ciy rafetlu lu baax. Euh, et juste encore une fois, merci pour tout ce que vous pour. Euh, votre conférée, mais pour votre pays et pour le partenariat entre le Sénégal et les États-Unis et le, le partenariat euh, entre mon ambassade et, euh, et la confrérie Mouride, euh, c'est quelque chose qui, avec, qui a, apporte une un valeur énorme pour, pour les États-Unis et je suis euh, disponible n'importe quand pour n'importe quoi euh, de soutenir ce partenariat dans les, les jours à venir. moom daal coloré bu mu gis ak ambassade bi ak Sénégal dafa bëgg mu continue moom mi ngi soog a ñëw mais loolu moom moom def na ko ne moom mooy liggéeyam continuer di ko gën a soxal nga xam ne euh, mbégte rek la ci am incha allah. Donc, euh, vraiment, merci infiniment pour l'honneur que vous m'avez accordé et que vous avez accordé euh, mes collègues de l'ambassade des États-Unis euh, d'être avec vous aujourd'hui. Euh, et euh, je, suis vraiment touché au cœur et, et énormément reconnaissant pour cet euh, honneur extraordinaire. Merci beaucoup. mu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm di rafetlu li nga ko dalal ni ngeen ko dalalee moom gis na lépp gis na teraanga yi donc mu ngi lay mu ngi lay gërëm ci ci biir xolam lu mu yëg fii moom tey moom kontaan rek la donc mu ngi lay gërëm sëñ bi waaw waaw mi ngi mi ngi mi ngi sant <laughs> au nom de mes collègues, j'ai aussi, euh, euh Khalif, euh, voulu vous, vous, remercier très sincèrement pour le cadeau très généreux que vous nous avez offert, euh, le mouton. Euh, non, qui était vraiment euh, reçu, reçu, avec beaucoup de joie. et nous avons une petite partie de notre délégation ici, mais beaucoup d'autres qui sont euh, pas dans la chambre avec nous, mais qui sont également reconnaissants pour ce geste très généreux et, et si je peux le merci merci beaucoup. bi moom jot nañ ko si jàmm ak salaam ngi lay eh, gërëm lool ci lool lool te xam ne am na ay collègues yu fi nekkul mais ñoom tamit neen si jot loolu moom day wone encore eh, mbégte bi ñu am rek si ak ñu dalalee. ñu lay jaajëf. this is something that is common for the Marine. Wow. And it has to be done like that, and it will be continued to, to, to do it like that. Être dans, chez vous euh, avec l'esprit de Teranga, mais aussi la générosité de, de, de la confrérie Mouride, c'est euh, vraiment <laughs> quelque chose extraordinaire. Merci. moom mi ngi yëg yëg yëg na Teranga bi mu ne lii moom mbégte rek la mun a wax mu ne nekk ak yéen di ko dund yàgg na ko di ko dégg na mais lii mu dund ko loolu day yokkal bëggeel ak cofeel bu mu am senegal ak ci mbir Thank <laughs>